maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam jërëjëf jërëjëf li may ubbee rek parce que man Je suis désigné pour faire la déclaration de ànd sàmm Sam Djikoyi en français. Mais avant la bëggoon naa sànni quelques kàddu pour leeral sénégalais yi ñi nga xam ni ñoom ñooy jiite sunu réew mi lu mu leen jaral pour yàq sunu askan war nañu koo jaral ñun pour defar sunu askan. président de la république ak ay députés suñu parewul pour voter ñu loi buy criminaliser l'homosexualité dinañu abal ci nii wala mu abal ñu ci nee parce que bu dee Sénégal ñun ñoo ko moom ñun sénégalais yi xalif généraux yëpp signé nañ pétition bi sénégalais yi ñu ëpp ci ñoom signé nañ pétition bi bu dee président Macky Sall ak ay ñun ñoo leen fal fekkee ñun lañ fi nekkal dañuy voter loi buy tere ngóor jigéen Sénégal bu ñu ko mënul dinañ ñu abal